mooy base politique dañ koy téye. dañ koy toppatoo. Cheikh Issa Sall il est maire de de Mbour. il a perdu Mbour il est sorti xaw ma cinquième xaw ma sixième. il est il n'a même pas 2000 voix. te il est maire de Mbour. il n'est plus CDC non nit ñi dañ koy baye yaratul khalis wa mais. <laughs> xam nga logique la wa ma fi Sénégal da ngay. ko analyser wa Sénégal lomo Sénégal 6 je reviens.

amul mmh. déglul mmh. le yeewi askan bi bañuy gagner élection législative bañuy yobbu bañuy yobbu ñuy yóbbu la Benno Bokk yakar mmh. lan lañ doon gérer affaire góor jigéen yi c'était ils avaient des favoris tu parles de gestion troisième mandat tu parles de gestion même buñu amul won moyen dynamique bi dañu amone ay consensus national abu mooy góor jigéen yi la loi ak sàmm jikko yi à côté am beneen côté troisième mandat wu Macky Sall parce que Macky Sall la waroon décider après élection yi abou c'est dañu amone ay lulu leen favorable mais abou il faut qu'on ait l'affaire Adji Sarr aussi les gens pensaient que c'était un complot d'état c'était la communication ils ont utilisé, usé de la communication pour avoir ça. L'opposition n'a pas usé de la communication pour y aller. Parce que, parce que nous pas réglé le problème. Je suis pas ton opposant. Non, mais même sur cette question, parce que vous avez demandé, c'est-à-dire nous avons une liberté. Mhm. parce que comportement à Ba bi ñu koy wax fii ak kii ak ni mu def ak. fausse li mu départ gis na Amadou Ba. Mhm. li wax. ak mhm. bii ko Ousmane Sonko tendre perche boobu mhm, période boobu Amadou Ba dawoon loolu samp mu dem ci lii bi nii bi moi je mais yooyu noonu mais da ngay dem ci côté bi man je n'essaie pas de te convaincre mhm. damay joxe suma xalaat par rapport à une situation man damaa jàpp ni quelqu'un ki a géré sa base politique a gagné mais amatu fii mais ah, ah, base bureau de vote euh, c'est-à-dire même bureau de vote il a perdu son bureau de vote Sénégal. tu parles des individualités. j'ai dit je parle des Sonko c'est un phénomène comme nous ñu Il hmm. la bu phénomène les Sénégalais, parce que c'est un homme base y Sonko coefficient Sénégal di dafa am ñu gagné seen base. parce que dañu base politique da nga koy gérer. waaw d'accord naa mais mais comme quand par exemple. politique coude rek ku yor coude rek. non attends dafa am ay port ay coude dafa am direction yoo xam ni ki ko yor. Hmm. boo ci jógee un mois mën nga téye sa base. parce que booy ñuy joxe poste politique yi hmm. tamit noonu la ñuy joxe poste politique bi Ousmane Sonko nee bëreet ba mu xamee day dem élection CDC la fëgg Fadilou Keita. Hmm. fëgg que le port ki nga xam ne moo yoroon sécurité beeg yor base beeg yor fii bi. Non lay demain. parce que le rapport de l'argent avec les sénégalais et les militants et les responsables dafa déterminant ci élection émission Abou, politique ku base la mm-hmm. mm-hmm. j'ai dit politique ku sa base c'est ça la mm-hmm. vérité c'est ça la réalité parce que renouvellement bah, bah, par exemple par exemple la base politique des hommes politiques Mhm. xam nga lu tax amuñu base politique dañoo xaar ba nekk am ndomba tànk doog am base. Mhm. mais soo perdee élection suñ la wàccee tu perds la base. Mhm. politique sa base da koy téye ba nga amulee dara. mooy relation bi nga am ak nit ñi démb ak barki démb. c'est ça la vérité. aujourd'hui ñi nga xam ni yàlla may na leen base seen localité gis nga xam nga dama yàgg wax ni élection yii. si chaque maire gagnait sa commune l'opposition allait gagner parce que ils ont

Moustapha Ba maire ñoy rang bureau mm. APR biñu dawalé 8 huit ans l'opposition de l'APR c'est l'APR mm-hmm. parti socialiste biñu joxé poste yi Aminata Mbengue jox ñom gaay jox ñu defar bureau assemblée l'opposition de parti socialiste c'est parti socialiste mm. ah, ah, ah, c'est-à-dire lool la la ne la gis nga gis nga bo démé ci zone yi homme mm. d'affaires yi waccion ci zone yi té mm-hmm. daan di appuyer gaay ñenn ñi bi ñu commencé côtoyer Ousmane Sonko deux ans avant di dugal. dañoo affaissé seen seen ki nekk fa investir fële. facteurs yooyu yëpp dafa feeñaale ci biir élection yi am na koo xam ne ni. Mhm. day bokk ci parti comme li xew dakaar nii. Mhm. ñoo am dañoo bokk man bi may wax keroog Dakar.